yow taxawal fi ba ma waaye yow win moo lay maîtriser nga naan lan maîtriser papa papa ten ten ten ten ten ten ci papa moom mooy bitti loxo nii di jéem a jaay waga nii sama kaw papa demal xaw ma lan la waxoo ma lépp waaye xam naa ne am na lu xew am na looy daw bañ mu rëcc la moo tax ñeme woos bu guus a taxaw ak man parce yow fu ma la musaan romb di ma ne eh ma ñam sa poosi waaye di ma jéem palpe xam naa la koy ñeme ji lu wóor laay laa xay laa génn leen damaa bëgg ngeen génn fii ñu lijjanti lii ndax lu ëpp tuuru cin bënnul fukkul dafa nekkoon ne may dem génn leen yéen laay waxal cin bënnul fukkul yax ba fa nekkoon ne mes génn leen ñu waxtaane léegi lii sama yoon nekku ci ndee njaay ndee njaay ndee njaay bàyyi su kaaw aye ci man nga jël sa xol bii rek nga xam ne mën nañ cee teg baraada di ci attaaya ah lii di kaw wax Tambacounda ndax tàng yow defal ndànk yi duma ko lekk duma ko naan su ma paree ma delloo wàll ko ndànk. waaw wax dëgg yàlla <laughs> ah Ndeye Ndiaye goreel la. waaw Ndeye man su ma nekkee si sa sa sa néeg damay nekk olala su ma nekkee fii bàyyi ma ma def sama olala ah. massa ma leen xoolee sax ay yow li la yóbbu olala dama koo ko kon man boo nekkee fii sama yoon du si ne ndax xam wul naa sama bopp xam naa li may jëriñ ci yow. dama ne la fëgguma def defuma leen li fi xaw laa wax nañ ko waxtaanee léegi. ndax problème dama ne la sama xaalis laa teg ca kaw. geesu ñëwaat gisatuma sama xaalis mu ne may dem laa bëgg nag mu génn ki ko jël. léegi léegi da ko génn ndax bugguma fee yóbbu kenn fenn. kii de ah, kii caaxaanul. waaw mais moom suy laajte xaalis ma ne ko ana yàlla man ci kaw duma fa yéeg sama yoon nekku ci. ci laa am sama porte d'entrée porte sori porte gore laa yor mënu sama yoon ci kaw na ko laa ñuy yëg ci kaw. Ndeye Ndiaye xoolaatal sa xel ba xam denc loo ko si place wala nga toog nekk ak réfléchir dafa réfléchir. Eh, xam nga lan la yow bu dee dañ doon jur góor ba yóbbu la feneen man sama yoon nekkul ci loolu. li may wax xam nga ko bu baax kër gi ñun ñoo fi nekk xam nga ki ñi fi nekk ak sa doom jooju. papa waaw ani papa. sama yoon ne man dama ne la. ndax xaalis moom du ma ci wax du ma ci yéeg du ma ci wax xam nga laa lay may 17 heures. waaw yaay boroom kër gi yaay kilifa gi. lijjanti ko mu teguwaat fa ma ko tegoon. sinon dinaa yóbbu ko ko sàcc di ko kottuloo di ko ŋeerloo def ko dóom. Ah, sunguf defal la sax sunguf bul wax loolu kii ragaluñu loolu ragaluñu ko. waaye eh, oh, oh. coow laa nga sa bopp koñ ba. lu xew fii. ngeen amee wala lan wax ko wax ko. seen saf na ni mégaphone. Eh, vie ma li fi am lenn dong la. sama xaalis laa teg ci kaw ñu sàcc ko. bu dee nag yow yaa ko jël teel koo delloo ndax bugg yow li nga nekkee ni bëgguma la cee tegal leneen yaa ngi may dégg bu ma demee si sëriñ nag dina la def loo xam ne ki ko jël ah du ma wax de sama sëriñ dafa soxor si sàcc de bu dee yaa jël sama xaalis delloo ko. xaalisu jamur la xaalisu mbootaay eh, eh, am nga lan la man boma waré di nga bëgg a mu teul yo li lan la sama xaalis dafa réer bu dé ya ko jël génnee ko wa eh li nga bëgg ma wax ko xam nga ko ah? li ngay bañ ma wax ko la wax dina ko wax né dama bëgg xam xaalisu avec bi la ne coppet wala bu sa poche bop lañ né doñet xaalisu avec bi oh tàng na. xam nga loolu dellu si waatal eh pivoté waatal xaalis avec bi kenn laalu ko. yaa ngi dégg xaalis bi ma dénkoon la te bëgguma nag ñu may teg ci bërëb di ma àtte sama xaalis da génn bala ma leen a indil problème ci kër gi. waaw man mën naa dem ah, eh, te taxawal rek. Mm-hmm. xam ngeen lan la. sàcc ku ko xool ku ne war nga kaa xàmmee. li réer ci kër gii. li ma gis muy daw di dem. waaw. kooku su la. kan da ngay gis kuy daw di dem. nag tase naag papa. Ah. Ah, ca àngalu koñ ba. waaw mais virage bu mu jël ak allure bu mu ko jëlee ak fukk boobu. waaw xam ni yaa quelque chose. ay enquête ko nag. Eh. sama sixième sens moo ma yóbbu ci loolu. wee. ki jam tur ki jam. wee wee wee. ah. wee. ah papa. papa man maa ko tuddee sama papa sama papa musul jële yëfi jàmbur xamal naa ko ñam kon ñam xaalisu jàmbur musuma ko ko xamal sa papa war mën na koy weddi man weddi wu may de damaa loolu laa wax yow papa moo sàcc sama xaalis lii am am na pare leer na naan ne gis nga ko muy waaxu di dem moo ñam affaire moom la man eh. de musuma ko xamal loolu waaye bis bu fekkee papa mooy def loolu day fekk ma si kër gi bala nga koo def dara man maa koy dama ko yóbbu police gis nga papa tey reer police la koy fekk defal naka rek sama yoon nekku ci loolu ndee njaay ndee njaay yow bu ko fula ne ndee njaay yow ndee njaay daaral bu fekkee papa mooy sa cakalis ndee njaay eh, xaw ma nag da ngay yuuxu pour défendre papa Kau xaw ma lan ngay salli salli gis papa ya gis papa ya. Ma ko gis naa la. waaw waaw. ni ma rombee sàcc dong ngay doxee noonu bëccëg. far la dafa daw. lu leex nag lenn la. man gannaaw maa ak yéen bokkunu dara. location bu nu boole. Ya ma wóolu leen. nee ko mu tëb sama néeg. bu fa duggee dootul dugg de. waaw baax na wee wee baax na yor damay bàyyi leen ma ko fi. Eh, papa papa dey tey doy dey doy papa jeex na nay rey ma wala ma ray sàcce mooy des kin sàcce mooy des papa. kaaw kaaw nga tey dañ koo soxla ci ndox waa ci nit la gën a pëtt pëtteeg përëx përëx fajul dara. man papa mën ngeen ko waxal lu ne di ñamantu ay lek jambu rek di ñamantu ca waañ waag mais sacc mom ya jur sa dom ya ko gëna xam xamé woko tay xam nga ne carrément ndey ndjay bëggul gis papa bëggu ko tek bët kon tay leen ci mbir mi bala ngeen ko jiñ lo police mën na ci dugg suba ngeen am ci gatché falaayam ay papa ay papa boo sacc e xaalisu ndey ndjay ay papa sacc e xaalisu ndey ndjay ay papa bu sàccee xaalis Ndeye Ndiaye man damay rey sama bopp rek yàlla ay papa day sàccee xaalis